acca salaamaaleykum mbokku internet yi safoo di seetaan site bi di wasaare ginnaaw ba ñu leen nuyoo tey ji nag ni ngeen koy gisee ñu ngi fii wakaam ñu woowee ñu fii kaa bu doy waar muy benn bébé boo xam ne rek dañ ko daal di sànni ci oto bi nga xam ne moo nekk ci suñu ginnaaw comme ñun waa wasaare nag nit bu ñu woowee ci mbir dañuy def déplacement ak dérangement dem ba fi nga xamante ni foofu la xewee gisee askan bi daal di leen tàllal suñu micro ñu wax ñu seen xalaat ci mbir yi naka la demee loolu moo tax nag damay dem rek doxantu tuuti ci ñi nga xamante ni ñoo dend ak fi oto bi gaare laaj leen ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko fekkee bu ko defee ñu jox ñu ci ay leeral ci bébé bi ndax góor la wala jigéen ñaata mois la am wala ñaata semaine ak yaayam ndax am nañu suspicion ci koñ bi waaw wala déet xaalis sama doom ji bu baaxee rek nga topp ma ma gisee ak ñi nga xamante ni ñoo nekk ci alentour yi waxtaan ak ñoom aca mbokk internet yi kon mu la ñu leen ko waxee rek mbir mu doy waar bi nga xamante ni moo xew fii la ci Wakaam muy benn xale boo xamante ni dañu ko sànni ñu toog ak kenn nag koo xamante ni fekkee na mbir yi suñu yaay ji dañu koy nuyu rek bàyyi ko mu xuus ci mbir yi naka la demee yaa booy ñu ngi lay nuyu salaamaaleykum man daal dama toog nii rek tur bi la bi abi abi Diagne léegi daal mu ñëw rek benn ki doon wàcce aliment yi mu ne ma yaay lii de doom la ma ne doom rek ma daal di ñëw oo sama benn kii sama benn càmmiñ mu ñëw jaba ji daal di ñëw uuf ko daal di koy kii nit ñëpp daal di ñëw nag mu daal di ñëw ñu yóbbu ko hôpital waaw. man anam ngeen fekkee bébé bi fekk ngeen mu sol yére wala ci lim ko lëmas lan la. benn sëru wax la ko lëmase. solul yére solul dara dara dara nelawul deful dara di xoole. billaay niñ ko ni mu ko juree woon daal noonu la ko sànnee waaw. bi ngeen ko gisee ñaata ñaata mois wala ñaata semaine la war a am. amagul semaine bi mu ko juree rek la ko indee mu ngi tooy xepp taq rip rip rip rip rip waaw. d'accord yaa bi lan la góor la wala jigéen. góor la góor la waaw góor la góor la waaw. fan la ko sànni exactement si buntu kër gi wala. kii oto bi benn oto buy gaare mooy kii càq-càq yooyu ñu xewal léegi yi am oto kii yu bula yi. fa la ko sànni. ci biir la ko dugal. ci biir la ko dugal ku doon uy téléphone daal moo dégg luy luux luuxi mu yëndu rek mu nekk lii de doom la mu ne ko doom mu ne ko waaw. man ne ko doom mu ne ma waaw mu ñëw ñëpp jaar di ñëw nag man nag fi ma toog jógewu ma fi ndax man yooyu sama yaram nangu ko dëgg yàlla waaw. d'accord xamoo leen ban heure la ko sànni à peu près. Eh, kenn xamu ko nag wax yàlla xamuñu ban heure la ñu daal li ñu kii rek ñu ne doom man ne doom billaahi. d'accord ni ngeen ko gisee fekk ngeen ko ak bakkanam wala fekk ngeen mu ñàkk bakkanam. mu ngi am bakkanam mu ngi nooyu waaw dara jot ko dara jot ko dañ ko yóbbu hôpital ñu defal ko vaccin yi solal ko yére. jox ko mu nàmp. d'accord nag ngeen gisee kii bi amu leen kenn koo xamante ni soupçon la ci koñ bi wala kenn koo xam ne xalaat ngeen ne ëmb na fi. déedéet koñ bi moom gaa gisuma kenn ku fi ëmb. kenn ku fi ëmb waaw kenn gisuma kenn ku fi ëmb man fii rek laay toog man maay garde maison bi ku dem fi nga may fekk ku ñëw man ngay bàyyi maay téye caabi yi maay téye bébé yi maay téye lépp waaw deew ma fenn. d'accord xale bi jamono yi ci yenn loxo la nekk. mu ngi hôpital ñu ne waaw. hôpital lañ ko kii nee na ba mu am weer ñu soog ko joxe waaw. d'accord yaay tey ñu gis ne sànni bébé yi bari na lool yenn saa yi dañ ciy jël ay kaay yu bari ñu woowee ñu ko yenn saa yi da ngay gis sax ci commentaire yi ñoo xamante ne dañ naan la sëy na ak sama jëkkër 10 an wala sëy na ak sama jëkkër 9 ans te aw ma doom boo xëyee ñu woowee la beneen cas boo xamante ni sànni nañu bébé rek ngay dégg boo amoon looy wax ci loolu lan lay doon. ah bébé boo ko yoree da ko war a ndax yàlla a xam xamoo ku kenn kenn xam ku lay jëriñ kon boo amee sa bébé na mu mënti mel tamit da koy jàpp fukki loxo juróom-ñett benn bébé bonul waaw. naa suñu biir waxtaan nga ne sëy nga waaye yàlla mayu la benn bant. mayu ma benn maa ngi nii loolu laa jooy ko ba feebar. jot nga ngir ñu uh, jox la bébé bi yi nag dëgg yàlla aw ma moyen yi pour ko aw ma yi dëgg yàlla waaye am nañu ñeneen ñu ko bëgg ñu bëri bëgg nañ ko ñu bëri bëgg nañ ko. ba ki ko yóbbu nii hôpital sax yooyu yëpp neen da ko bëgg waaye man fi ma toog daal dëgg yàlla xam nga te booy wax da ngay wax ngir yàlla waa booy am moyen yoo koy téye waaye amoon moyen dama doon sëy sam borom kër wàññeeku ci laa ñibbisi fii temps yi yàggul Eh, li nga xamante ni moo la dal muy ñàkk doom doon lu loo xam ne lu metti la gis nga tey ñu jur doom sànni nga nekk koo xamante ni ku ko bëgg nga d'après bi nga gisee bébé bi sa xel ci lan la dem exactement. xanaa rek ku amati bébé rek na nga ko téye dëgg yàlla dëgg sama sago xam nga yàlla may ma waaye yàlla mayu ma ma gëm loo ko yàlla rek. Mhm. d'accord maman ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax boo amoon message booy jàllale jëmale ko ci xele yi nga xamante ne genre gi amaguñ borom kër lan message lay doon. xanaa ku ci am rek bu ëllëgee nga ko téye. xamoo ban doom moo lay jëriñ benn doom moo lay jëriñ kenn xamul yàlla rek a xam doom yooyu ñu sànni rek ñoo fi tekki ñoo fi am lu baax waaw loolu rek laa ci sànni ko am sa bébé daal na ko téye problème boo mënti am tamit nga téye wala nga dem maye ji ko sax moo gën di ko sànni rafetul sànni bi moom dafa ñaaw. d'accord merci maman ñu ngi lay jaajëfal. ok waaw jërëjëf yal na yàlla fay leen. yaa booy ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. naka la. ma Roqeya ban gis-gis nga am ci mbir mu doy bi nga xamante ne nii moom moo fi xew. ah man de gis-gis bi ma si xam ko dëgg yàlla mbir mu ñaaw la ndax jur doom ba pare amul loo koy def lu dul di ko sànni ah doy na waar daal doy na waar jëloon ko mayee ko sax moo gënoon def nañu waaye mm, xale yi tey nag ñoom mm, dañu doy waar. parce que booy dem tam di def yenn yi tamit ba xam ne nattu fekk la si amal ngor rekk metti na ak man amal ngor rek nga téye ko nga nga téye ko ndax loolu loolu moo war a jaar parce que ba nga koy def xalaat xalaatoon nga si ne lii mën na la see fekk boo bu amee rek àndal ak ngor rek ak sa kii rek nga téye boo téyewulee boo mënulee téye tamit nga dem maye ko nga dem maye ko. tey am na ñu ko soxla ndax yenn saa yi boo dugalee vidéo yi am nañu si bëri danaañ la sama diire say ña temps la mais mosuma yàlla mayuma si bant nga xëy gis koo xamante ni dafay jur doom sànni ko aussi. Ah, ngay gis ñoo xam dañuy jur doom sànni gis nga di nga gis ku sëy nekk jëkkëram vingt ans lu ko ëpp sax musul am doom boo jëlee kooku nga dem fekk ko ne ah yaay man lii ak lii ndog mënuma ko téye ndog ndax lii ak lii moo tax ma bëkkee nga yëkkati jox ko ko. muti mu muti mu tey waaye moo gën di ka di ka sànni moo gën man sànni bi d'accord ma si man. dana bi d'accord nga gis xale bi ñu sànni wala. man jotuma ko gis parce que man dama génn dama wàcce si gam ñoo fekk nit ñi ci fekk naa sax ñu sa ñu dem ñu yóbbu ñu yóbbu ko jotuma ko gis jotuma ko gis. tey bu amoon yaay booy lancé jëmale ko ci xale yu jigéen yi suñu genre gi ban message lay doon. xale yu jigéen yi dama leen di ñaan. message bi ma leen di yónnee moo di nanu toog boo bañ boo toogee ndogal bi mañ la de waaye boo fekkee ne toogoo benn place ngay cappi cappi cappi fii ba ndogal fekk la si ah wax dëgg yàlla de nga war a am ngor gu toll nii ma dama leen di ñaax rek pour nu nu te kii nu yem nu yem ñu yem téye seen bopp moo gën façon bii xam nga lii moom dara jaru ko dara dara jaru ko si àddina kon nag nanu gën a xale yu jigéen ñi nanu gën a góor góorlu nanu gën a góor góorgóorlu téye ponk seen bopp te bàyyi taxawaalu bu metti bi parce que taxawaalu bu metti dugg fii dugg fii mooy indi lii kon nag nanu góorgóorlu man de loolu laa leen di ñaan parce yaay tamit yenn saa yi euh, maanaam suñu yaay yi duñ ci am part de responsabilité parce que boo gisee sa doom mu ëmb nga gis ko nga jékki-jékki gis ne kii nga xamante ni euh, gisatoo ko mu yor ëmb est-ce que bu boobaa doo ko wala nga dem dénoncer ko ci police bi. waaw yaay yi am nañ si responsabilité parce que yow boo yoree sa doom mu mu ëmb yow boo ko gisee war ngaa xam ni kii dafa ëmb nga topp nga di ko topp nag nga bay waaye boo toogee ba euh, gisituloo ëmb. nga naa la laaj ni la yow sa doom li li nga ëmboon ana moom foo ko teg di nga di nga nga wax boo waxulee nag man ma de bu doon ne man ma lay teg si yoon pour bu ëllëgee bu amaatee nga bañ a xalaat def def bu ne mel keneen sa morom boo gis lii am mu bañ mu bañ mu bañ bañ see jaar. d'accord d'accord ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. ñu ngi leen di fay. Ah, soxna si maa ngi lay nuyu. maa ngi delloo nuyu bi. yaa ngi ci jàmm. jàmm rek noo tudd. fan Sy. Fatmata Sy ñu dégg ne yow yaay joroon xele bi gannaaw bi ko ki nga xamante ne yaayam sànne lan nga ñu mën a wax ci yooyu. ah sama mère bi laa dégg muy yuuku maa ñoon si biir néeg bi mu ne gis nañu fii liir jéeng jéeng gis nañu fii liir ma daw génn fekk fii benn xale bu góor dafa yoroon bébé bi. moo yoroon bébé bi waaw. la ma sowul bu baax sax après ma ñëw rek daw solo ma saa dal na ma ñëw jël bébé bi la ma ko ba baax après nit ñi commencé ñëw rek ma dugg si biir sama néeg bi ma jëlaat foofu beneen ser ma def si benn mère mu ngi fi moom tam mu indi benn ser ñu nekk ñaari seer ñu bàyyi ko si biir néeg bi ñu nekk foofu ba policier yi gendarme yi ñëw waaw après après ñu ñëw ba pare ma génn ñu àndal ak moom ba fale fu ñu jëlee bébé bi ñu dindi yére ñu teg ko fu mu tegee woon ñu teg ko foofu ba pare après ñu photo ñu filmer foofu après ma jëlaate ko lem si ko si yére yi ma dugg si oto gendarme yi ñu ànd si hôpital bi waaw. d' accord bi nga gisee bébé bi ñaata jour nga xalaat ne moom la am. moom kay amagul 24 heures. déedéet amagul parce que yaram bi yëpp dafa tàkk bopp bi ak nopp yi mais yu des yëpp dafa set mm. waaw am na yaram dafa kees bo mm. bu mot la. waaw amul benn jooyul deful dara waaw. góor la waaw góor la mm. waaw. d'accord gisu leen fenn koo xamante ne soupçon la ngeen xalaat ne mooy yaayam wala. déedéet gisuñu fi dara parce que jour boobu férié la doo gis kenn fii dafa weet mm. doo gis fenn heure boobu doo gis fenn kuy dem marché ngay gis benn par benn yëpp ñu ngi ci biir néeg bi même fii magasin aliment bi ubbiwuñu ko woon waaw. d'après bien heure ngeen ngeen ngeen sentir ne bébé bi mu ngi fee. kii ay une mooy daal waaw déedéet une heure si suba waaw une waaw ñu ngi wàccee fii ay aliment après moom mu ñëw foofu dégg affaire bi yëngatu rek mu xool si biir gis bébé bi après nag ñu génn jël bébé bi waaw. d'accord bu amoon message tey booy lancé jëmale ko si suñu mbokku jigéen ñi ban message lay doon. ah damay wax rek ku am problème jafe yooyu soo ko amee ba pare dangay dem. nga jox keneen bébé bi mais mu sànni nii bébé bi loolu baaxul wóoru parce que ku ko gis jour boobu yëpp dañoo jooy waaw rafetul baaxul. te gis naa sax fi mu ko sore sànni nii sorewut ak xaj bi fu muy tëdd. waaw fii yëpp ay xaj la fii suñu koñ bi fii yëpp ay xaj la xaj dafa bari fii dafa am sens rek si biir kii bi moto bi waaw la ko duggal si fekkee woon si suuf xam nga loolu wóoru wóoru waaw. d'accord Fatmata merci beaucoup ñu ngi lay jaajëfal bu baax. waaw jërëjëf. bi nga demee la wax ci bébé bi dañ koy joxe wala. waaw mu ne dañ koy léegi dañoo bàyyi ko si hôpital bi ma laajte leen léegi bébé bi nag mu ne léegi da leen di ñibbi ba pare après suñu ko moom mu ne il faut mu nekk si hôpital bi un mois après nag dinañu woo. dina leen woo waaw. après ñu jóg suñu numéro yi mais démb demoon naa foofu kool bébé bi mu ngi si jàmm. waaw waaw. waaw d' accord Fatoumata merci beaucoup. waaw jërëjëf.